أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ñoo ngi ànd ak yéen ci qisasul anbiya di jël tey yonent bu tudd zilkifli zalkifli allazi warada ismuhu fi lquran mu ne waa jooju ñu naan zalkifli ki nga xam ne turam rot na ci alquranul karim borom bi subhanahu wa taala tudd na ko ci ay aaya ci alquran mu ne moom huwa nabiyullahi moom yonent yàlla la wa kaana muaasiran li sabiyi lyahud fi lbaabil nee na moom ku jamonoo la ak benn waay ci yahud yi ci dëkk bu tudd baabil waa jooju mooy sabi qaala ahlu taarix zalkifli zulkifli huwa ibnu ayub alayhi salaam ñi bind histoire dañu ne waa ji tudd zulkifli ñu ne doomu ayub la ñu ne wa ismuhu fil asli bishr ñu ne turam dëgg-dëgg ci cosaan du zulkifli waaye bishr la waqad baasahu llahu baada ayub yàlla yónni na ko ginnaaw ayub bi ayub faatoo la ko allahu subhanahu wa taala tànn def ko ab yonent wa sammaahu zalkifli li annahu takaffala bi baadi taat fa waqa biha lan moo tax ñu tuddee ko zalkifli moom dafa am lenn lu mu volontaire coobarewu ko ci jaamu yàlla loo xam ne ñu bari mënuñu ko moo tax ñu tuddee ko zulkifli mooy ki chargé wu ki teg ci kawam luñ ko tegul ki tegu ci kawam loo xam ne kenn santu ko ko wa kaana maqamuhu fi saam moom mu ngi dëkkoon tey fi ñu naan siri foofu ñu naan saam foofu la dëkkoon foofu la nekkoon wa ahlu dimashq gis nga tey capital bi moom lañ naan dimashq mooy siri am na sax ñu wax ne bàmmeelam foofu la nekk ci benn montagne foofu ci dimashq montagne boo xam ne yu sama xoosi yuun montagne bu tudd xoosi yuun nee nañ foofu la bàmmeelam nekk moom zalkifli illa anna baadul ulama yarawna annahu laysa bi nabi waaye lenn ci borom xam-xam yi dañu ne ñoom seen gis-gis mooy waa ji du yonent laysa bi nabi wa innama rajulun min as-salihin ñu ne waa ji daal daa bokk ci nit ñu baax ñi kese du ab yonent waaye nag ci nit ñu baax ñi la bokk moom Zalkifli ñu ne ci gaa yu baax yi bokkoon ci banu Israil moom Zalkifli ci la bokk demal biir daara ba nga toog foofu benn boroom xam-xam bu ñu naan Ibnu Kasir yéen ñëpp xam ngeen ko te muy firi alquran moom ibnu kasir nee na zulkifli yonent la moom dafa weddi li boroom xam-xam yële wax mu ne kii ab yonent la ñu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne li anna allaha taala qaranahu ma al anbiya yàlla bi muy lim yonent yi daf cee boole turuwaa ji kon kay loolu dalil bu wér këng la ne moom ab yonent la borom bi moo ne wa ismaila wa idrisa wa zalkifli kullun min alsabirin wa adxalnahum fi rahmatina innahum min alsalihin yàlla ne yonent bu tudd ismail ak idris ak zalkifli ñii ñëpp kullun ñii ñëpp min alsabirina ci muñkat yi lañ bokk kon lii mooy wane ne moom ab yonent la kon zalkifli yonent la turam dëgg-dëgg mooy Bishr yàlla nee na wa adxalnaahum fi rahmatina ñoom ñii ñëpp dugal naa leen ci sama yërmande innahum ñii min as-saalihiina ci gaa yu baax yi lañ bokk mbokk yi aaya bi daf ñuy wane nit baax rek moo ko jig te nit ku baax ba yàlla tàgg la yow desalatuloo dara ñetti yonent yi yàlla moo leen seedeel ne ñoom ay muñkat lañ yàlla moo leen seedeel ne ñoom dugal na leen ci yërmandeem yàlla moo leen seedeel ne ñoom dañoo baax kon ku yàlla wax li lan moo la deseeti ci àdduna yàlla moo leen takkal grade yi qaala ibnu kasir sëriñ boobu tudd ibnu kasir di firikatu alquran boobu nee na fa zahiru من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء الصادة الأنبياء أنه نبي عليه السلام ابن كثير نينا لي فين دغ دغ لي لير موي تورو واجي يالا واخوكو سي القرآن دندale ko turu yonent yi turu sang yi ludul day wone ne ab yonent la kon zulkifli yonent la bu bokk ci yonent yàlla wax seen tur ci alquran ñaata lañ ñaar fukk ak juróom zulkifli ci la bokk mu ne annahu nabiyun yonent la yàlla moo ko yónni moom zalkifli lan mooy mbiram nag moom zalkifli mu ne lama kabira nabillahi yasa قال في نفسه لو أنني استخلفت رجلا على الناس فأنظر كيف يحكم ويعدل بين الناس فإن كان عادلا رحيما جعلته خليفة على الناس من بعدي دفعم يونان تبتدو إليسا موم يونان تبو دفع موسى توغ رك مرادي وخ وخلات بن خلات mu ne waaw man lan moo ma tere woon comme màgget na mënatuma ma seet kenn ci xeet wii mu remplacé ma ma xool waajooju ndax dana nekk kumaandu ndax dana àtte dëgg diggante nit ñi su ma defee loolu ma gis waa ji maandu di àtte dëgg yërëm nit ñi am ci ñoom yërmande mu ne jaaltuhu xalifatan ala nnaasi min baadi léegi nag ma woo nit ñëpp ñu ñëw man leen bu ma deewee kii moo may remplacer ab yonent bu tudd Ilyasa moo xalaat loolu léegi nag comme xalaat na kan lay wër bu njëkk mooy waajuy àtte nit ñi lay seet kon foog mu ut boroom xam-xam ñaareel waaju maandu lay xool kon foog mu ut ku ragal yàlla ñetteel mooy waaju am yërmande lay seet kon ndeke nit ñi bu ñu leen di fal dañ leen war a fale ay critère waru ñoo rek kii moom a neex xam nga Sénégal loolu moo leen indi problème diwa ma neex wala diw moo xew wala diw la nit ñi bëgg déedéet moo tax chaque jour ak ñuy màtt suñu baaraam fa qaama moom yonent boobu mu daal di jóg comme am na projet projet mooy lan seet ku mu fal ci kanamu nit ñi mu daal di jóg wa jamaa annaas mu dajale nit ñëpp mu ne leen man yadmanu li an yafala salaasa ashiya astaxlaftuhu min baadi ñetti mbir yi daal ku ma mën a assurer ne di nga ko def ma fal la nga jiite nit ñi waaw képp ku ma garanti ne ñetti mbir yii di nga ko def di nga ko matale dinaa la fal ci kanamu nit ñi ëllëg nga jiite leen nga remplacer ma fa qaala annaas wa ma hiya nit ñi ne ko waaw ñetti yooyu nga bëgg lan la fa qaala alyasa alayhi salaam moom yonent boobu tudd alyasa mu ne ki ma bëgg mu wuutuma yasuumu nahaar day woor bëccëg bi dootul lekk affaire yaa ngi bëgg a metti de wa yaqumu leyli day julli guddi dootul nelaw wa yaadilu fala yaxdab day maandu dootul merati ñett yi daal laa bëgg ku ko mën xam nga léeg-léeg mën ngaa wax benn mbir am am ñu ne ñun mën nañ ko xam nga mbir yomb na nga def ko benn fan bu nee woor benn fan kese ñaar ñett loolu yomb na waaye ñu ne la da ngay woor ba dee dootoo dogati da ngay julli guddi dootoo tëdd si dootoo merati loolu yombul de maanaam waxul ñetti fan wax ko juróomi fan wax ko weer da ko ne li ci ci ngay dëkk bi mu waxee loolu fa qaama rajulun basiit benn waay bu yamamaay ndeysaan waaju sew waaju digg doomu wa huwa zal kifli moom mooy zul kifli mii fa qaala mu ne ana mu ne man mën naa ko ñu ne ko loo mën mu ne li yonent bi wax ñu ne lan mu ne di woor fu ma toll mën na ñu ne ko ak lan mu ne di julli guddi duma nelaw ñu ne ko ak lan mu ne ma maandu duma mer fa qaala alyasa alayhi salaam yonent boobu tudd alyasa ne ko anta tasuumu nahaar yow da nga wóor bëccëg wa taquumu leyli da nga taxaw guddi wala taxdab doo mer fa qaala naam mu ne ko waaw qaala fa raddaha zalika alyawma mu ne waa dem leen nit ñi daal di tasaaroo wa qala mislaha al yawm al axir mu dogaat ba mu neex ko ca suba sa mu dajale waat nit ñi waxaa leen li ma leen waxoon dama bëgg a fal kenn ku ma fi wuutu waaye dama am ñetti charte ñu ne ko ñetti charte yi mooy yan mu la li ma leen waxoon démb mooy lan lan la waxoon démb dëkke woor fanaanee naafila doo mer maandu doo mer nit ñëpp noppi bi mu waxee loolu ñëpp noppi waat fa qaama zalika arrajul waa ji daal di jógaat zul kifli fa qaala ana mu ne man mën naa ko fastaxlafahu mu daal di koy jël wuutal ko ci nit ñi ne ko yow yaa may remplacer keroog lañ ko tuddee fa sammahu llahu zal kifli keroog lañ ko toog lañ ko tuddee tur boobu mooy lan mooy ku ku ku tegu jaamu yàlla buñ la sant loolu mooy zalkifli mooy ku tegu ku volontaire jaamu yàlla buñ la buñ la tegul loolu mooy zalkifli foofu la tur bi jógee lan la volontaire lan la coobarewu di ko def ko mooy dëkke koor dëkke naa fi la guddi maandu te du mer lii la waa ji teg ci kawam ñu daal di koy tuddee zal kifli li annahu takaffala bi amrin fa wafa bihi dafa chargé wu benn mbir daal di koy respecté ni mu ko waxee mu defe ko noonu ñu daal di koy tuddee zal kifli fa kaana baada zalika mu mujj nekk nag ginnaaw li min al anbiya ci ay yonent comme yonent yàlla yi yàlla mooy tànn yonent yónni ko yàlla daal di koy tànn def ko yonent yonent yan allazina ñi nga xam ne awhallahu ilayhim yàlla da leen di dee di wàcce ci ñoom ay téere comme Moussa Isa Nuh Ibrahim Muhammad noonu la waa ji mujjee nekk yonent kon ku bëgg baax ku bëgg raw ku bëgg jiitu fokk nga def lu nit ñi deful da ngeen wax ku bëgg a raw nit ñi ku bëgg a jiitu nit ñi ci yàlla foog nga def lu nit ñi deful waa ji lan la def ba am lii ah waaw dafa jaamu yàlla imagineel guddi doo nelaw ak nelaw ni mu neexee sa soxna yaa ngi nii ah nga tëdd ba heure bu la neex nga jóg koor xoolal lekk ni mu neexee dool la ilaha illallah loolu yëpp mu teg ko fële chargé wu jaamu yàlla kon ku bëgg dara olof yi dañuy wax ne ku bëgg akara da ngay bëgg kaani da ngay ñeme kaani àjjana ku ko bëgg ku bëgg a nekk ci kanam ku bëgg a yàlla bëgg la ku bëgg a jege yàlla ku bëgg dugg aljanna mbokk yi tëdd di nelaw du may àjjana xaalis rek ku ko bëgg doo nelaw wala xaalis ku bëgg da ngay nelaw gis ngeen tey ñi bëgg xaalis su ngeen demee tàkkusaan géej ngeen gis gars yi ni ñuy entraînement yi ci montagne yi ngeen dem ci écurie mbër yi ngeen gis gars yi ni ñuy wutee doole loolu pour lan xaalis léegi nag bu fekkee ñu ut xaalis ñoo nelawul ma sama ak ñi ut aljanna kuy ut aljanna am na heure boo xamante ne guddi bu jotee waratoo nelaw kuy ut aljana war ngaa ut heure yoo xamante ne dootoo ko nelaw war ngaa ut waxtu yoo xam ne doo ci recevoir kenn ku dul sa borom yow rek yaag yàlla war ngaa ut waxtu yoo xam ne fooy déeyoo ak sa borom yow rek yaag moom war ngaa chargé wu ci jaamu yàlla loo xam ne yàlla sant la ko du julli suba du julli tisbaar du julli takusaan du julli timis du julli gee du du woor du woor fanweeri fan ramadan du loolu parce que lu tax parce que da ngaa bëgg a jege yàlla da ngaa bëgg a dugg aljanna da ngaa bëgg raw nit ñi da ngaa bëgg a baax kon fokk nga teg sa bopp loo xamante ne ci jaamu yàlla pour nga raw nit ñi mu ne wa kaana zulkifli rajulan salihan moom zulkifli nekkoon na waaju baax wa xakaman nekkoon na àttekat buur muqsitan bu digg doomu aadilan bu maandu gis ngeen gis ngeen jikko yi mu yoroon bi ci njëkk mooy rajulan salihan góor gu baax la woon ba yàlla daal di koy tagg ci alquran ni suñ borom bi muy tagg yonent yi mu tagge ko ñaari jikko mu ne wa ismaila wa idris wa zalkifli kullun min alsabirin wa adxalnahum fi rahmatina innahum min alsalihin yàlla ci boppam subhanahu wa taala moo ne waaji ku baax la kon ku yàlla ne ku baax la kooku baax na kon waa ji ku baax la woon baax te xam ngeen nit su dëggoo baax yàlla day woo jibril mu ne waxal malaaka yi nañu bëgg diw jibril yuuxu turam malaaka yi bëggu du ngeen fàtte histoire Abu Zar Abu Zar ab saxaaba bu doon ànd ak yonent yàlla Muhammad la alayhi salaatu wasalaam Jibril dafa ñëw benn bis waxtaan ak Abu Zar waxtaan ak yonent bi bay dem ne ko bu Abu Zar ñëwee nga nuyul ma ko Jibril waxtaan ak yonent bi bay dem ne ko bu diw ñëwee nga nuyul ma ko xoolal saxaaba du yonent du dara baax ba Jibril xam ko jaamu yàlla ba jibril xam ko di ko yóbbante nuyoo yonent bi daal dina jibril a taarifu abazar mu ne ko kayfa la aarifuhu wa jamiu almalaika man fi samaai yaarifuna lu tax duma ko xam mboolem malaaka yi ci kaw asamaan xam nañ ko du man rek de mboolem malaaka yi jamii almalaika man fi sama yaarifuna yonent bi ne ko kayfa taarifuna naka lañ ko xamee mu ne li kasarati qiraatihi qul huwa allahu ahad naka lañ ko xamee mu ne daa bëri lu muy jàng qul huwa allahu ahad moo tax ñu xam ko ñoom ñoom allahu akbar gis nga lu ma la waxoon sànq saa yoo chargé woo dara ci lu baax nga raw nit ñi lan la chargé wu moom jàngul walla waxat fu mu toll moom lay jàng am na sax ñu dem ne waaye yonent bi kii moom julleem yëpp sax xul wallaaw lay jàng yonent bi ne waaw nañ ko laaj ñu ne ko mu ne ndax moom mooy carte d'identité yàlla lépp tawxiid la te man damaa bëgg yàlla gis nga lu mu am mbokk yi zalkifli kaana xaakiman waaye muqsitan aadilan attekat la woon bu xereñ bu digg doomu bu maandu waqad taahada zulkifli an yakfiyahum amrahum wa yaqdi masalihahum wa yaxkumu baynahum biladli wa kaana rajulan sabiran muminan moom Zalkifli de signante na ak boroomam contrat jël na pacte bàyyee nit ñi lépp lu ñu am lépp lu ñu am mu bàyyee la ak ñoom mas ngeen gis buur bu amul salaire buur buñ dul bayal tool buur buñ dul raxasal oto buur buñ dul sangal ay fasam buur buñ dul bale këram buur buñ dul toggal buur lépp mu ne maa koy defal sama bopp bu ma kenn defal dara waaye wa yaqdi masalihahum mu ne teg ku am looy def looy deflu maa ngi nii soo ma ko waxee ma defal la ko waaw ku am looy liggéeylu rek maa ngi nii yemu ci waaye wa yaxkumu baynahum bil adli da daan àtte diggante nit ñi ci maandu tey waaye wa kaana rajulan sabiran ku muñ la woon moo tax aaya bi ko yàlla wax tagg ci alxuraan lan la wax wa kullun min as-sabirin moom dafa muñoon ku munoon muñ munoon muñ moo leen wan li mu li mu nangu li mu nangoo def lan la nangoo def saxoo woor loolu ko mënul mun est-ce que mën nga ko xoola ñun fii rek sunu sunu weer wi ñuy war fi ramadaan rek da ngay gis boo xam ne day xëy rek dikkale waaw koor gi ñaata fan na ci des sax sututut commence gis nga parce que mënoo muñ moo tax ngay laaj ci ñaata ci des pesk pesk pesk pesk xoolal naafila yi kan moo ko mën xoolal naafila guddi yi kan moo ko mën leen defe nañu bëri mën nañ naafila guddi tëdd ba 4 heures 3 heures et demi wala 4 heures nga jóg ah ñëpp mënuñu ko de xoolal loolu moo tax loolu mu toggoo ni mu métti mu ne ma mën na ko moo tax yàlla mu ne muñ kat la woon parce que dafa muñ yee yëpp pour def lii waaye mu'minan ku gëmoon yàlla la mu'minan ku gëmoon yàlla la moom Zulkifli waqad asna allahu alayhi wa adxalahu fi rahmatihi gis nga yàlla moo ko seedeel yàlla ko tagg ne ki waa ji ñu ne yàlla ne dama koy dugal ci sama yërmande fi dunya wal axira ki takk na dooma tànk de ku yàlla ne dinaa la dugal ci sama yërmande aduna dinaa la dugal ci sama yërmande alaxira ku Macky Sall ne woon naa la dugal tey pale rek gaa yi suba gaa yi ñëw rang sa kër wala ah journal télévisé RTS ban heure lay am. 20 heures tey ji bu ñu demoon nii rek nga toog di seetaan rek nga dégg président ñëw toog ci télé bi en direct daal di wax sa tur wax fi nga dëkk ne kooku incha allah dinaa ko dugal ci pale bi chaque jour bu ñëwee bu ñëwee buñ pale rek day dugg bu mu tam est ce que boo yow fajar gars yi duñ ñëw ndékki sa kër ah waaw léegi nag ku yàlla wax loolu nag ku yàlla ne dinaa la dugal ci sama yërmande adduna ak alaxira fi dunia wal axira yàlla mu ngi wax loolu ci suratul anbiya aya 55 85 86 borom bi mu ne wa ismail wa idris wa zal kifli kullun min alsabirin wa adxalnahum fi rahmatina innahum min alsalihin wa qala wazkur fi kitabi ismail wal yasa wa zal kifli suñu la laajee zal kifli ñaata yoon lañu wax turam ci alquran lay wax ñaari yoon ñaari aaya ci ñaari saar benn bi mooy suratul anbiya aaya 85 86 ñaareelu aaya bi nag insha allah ku ko xam di nga am kado ñaareelu aaya bi yàlla wax sil gëf ku xam ban saar la nekk ak ban aaya la antal axiir ku xam ban saar la xam ban aaya la di nga am kado kado yi ñëw na de samedi laa leen di indi ah surtout Saad waaw kii xam na saar bi aaya allahu akbar surtout Saad kii dina am kado yow di nga am montre samedi dégg nga ñëwee fii ma jox la montre surtout Saad aaya acca ko xam aaya bi di nga am montre ah de 23 de yow saar bi nga bëggoon wax ah kon dimbali nga waaj laaj wax na ko aaya 40 40 48 yàlla mu ne wazkur ismail wal yasa wa zal kifli wa kullun min al axyaar ndeysaan xool yonent yi ni leen yàlla di tàggee fële lan la doon xoon ah kullun min assabirin aaya bi di jeex mu ne innahum min assalihin xoola fii mu ne kullun min al axyaar ñii ñëpp ci ñi ñu tànn lañ bokk ñëpp dañ leen tànn allahu akbar ñëpp dañoo baax ba yàlla tànn leen ñu nekk ay tànneef ismail ilyasa zalkifli yàlla nee na ñii dama leen a tànn gis nga moo tax yonent yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam du ko yàlla di jubal di ko orienté yàlla dafa indi modèle yonent yëpp indi seen seeni photo ci misaal yàlla daan na yonent bi ulaika allazina hada allah ñii laa jubal ñii ñii ñoo ñu jub ñii ulaika allazina hada allah ñii laa jubal fa bi hudahum iqtadi boo bëggee jub toppal ñii ñii ñoo ñu baax ñi da ngaa bëgg a baax toppal ñii jeex na bi leen yonent bi toppee ba jub yàlla daa taxawal yonent bi sunu kanam nee nañu ne ñu eh eh ñu ne mu ne wa in tuti uhu tahtadu su ngeen toppee kii jub jeex na yonent bi nag moom lañ ko waxoon def na ko ñun nag ñoo ñoo des gis nga saxaaba yi bi yàlla dajalee bi leen yàlla dajalee ne leen yonent baa ngi nii wa in tuti uhu tahtadu ñoom dañ koo topp wax leen ma saxaaba bu jubul yéen lay xaar de wax leen ma saxaaba bu jubul góor ak jigéen cent vingt quatre mille lañu woon cent vingt quatre mille wax leen ci kenn waaw parce que dañoo jub dañoo toppoon yonent bi yonent bi ko topp jub ko topp baax ku topp yonent bi jub parce que yàlla moo ko wax ku topp yonent bi baax kon suñ fi des suñ melee nii rek dañoo wàcc ku ngeen gis ku dëng toppul yonent bi fu ngeen gis ku baaxul toppul yonent bi waaw ñu topp yonent bi yëpp doo ci gis kenn nga ni cim doo ci gis cem nga ni kenn nga ni ax of Aboubacar Saddiq lu ngeen ko xamal Omar ibnul Xataab lu ngeen ko xamal Ousmane ibnu Affan Ali ibnu Abi Talib Bilal ibnu Rabah Hamza ibnu Abdul Muttalib ah lim leen lim leen gaa yi ñu dem nga ñëw ci jigéen ñi ñëpp a jub ay téere la gaa yi di bind ci ñoom ay téere te téere yi du jeex te bind yi du jeex te loolu lan moo leen def loolu lu tax ñu baax dañoo toppoon yonent bi alayhi salaatu salaam ñun ñuy topp yonent bi te mënuñoo baax mënuñoo jub kon des na des na kon mbokk yi kii mooy zal kifli fi la dars bi yem incha allah àllarba bi la di ñëwaat ci kaw parce que bi ci tegu buluuxul maraam moo am li tax darsu zal kifli gàtt moo gën a gàtt ci histoire yonent yi zal kifli boroom xam-xam yaa ngi wax ni dañoo xamul ci moom lu bari moo tax mënuñoo bind di wax ci moom lu bari liñ ci jot a xam lu tuuti mooy tafsir quran yi ñu indi ñaari aaya yi li tax ñu tudde ko zal kifli loolu moo tax moo tax ñenn ñi sànq wax naa leen ci début ñu ne du yonent waaye ibnu kasir daf leen weddi ne yonent la parce que li tax yàlla jël turu yonent yi dugal ci turam wax ko ci alxuraan mooy kon ab yonent la woon insha allah dars bi di ñëwaat ad durus al mustafada min al qissa ay leçon yu ñuy tiire ci histoire zal kifli moom la ñuy waxtaane waat mu nekk moo yooyu tamit ñett la ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may nu fekkee defal ñu tawfiq assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bishr